jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi mbokki ñu dellu am mbégte dellu siwaat si ngeen ànd seek Abdou ba mu du Diawa Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokki tey ñu invité docteur Abdoulaye Niane mu nekk expert fiscal agréé nekk tamit euh, homme politique jiite parti bi di euh, parti Teranga Sénégal waaye tamit ñépp xame woon ko aussi ak coalition jot na coordonnateur coalition Euh, tabax jot na ngir élection législative yi nga xam ne moom la ñu moom la ñu dëgmal euh, dinañu waxtaan ak moom ci pàcc bu yaatu ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal euh, docteur Abdoulaye Niane Rewmi FM ma ngi lay nuyu. Abdou Khadre maa ngi lay fay di nuyu aussi auditeur yi nga xam ne ñu ngi teewlu émission bi. Euh, docteur euh, Abdoulaye euh, ñoo ngi lay jaajëfal bu baax ci nangu bi nga nangu invitation bi léegi bala ñuy wax ci coalition tabax jot na il faut ñu ñëw tuuti ci docteur Abdoulaye ñaan mi nga xam ne moo jiite parti Teranga Sénégal euh, lan moo tax nga taxawal parti bi ak lan moo la dugal ci wàllum politique. waaw question boobu yomb na tontu yàgg naa ci tontu d'ailleurs euh, li tax ñu euh, dugg ci politique d'abord mooy ne yàlla dafa def ñu bokkoon ci administration xam réew mi ni muy doxe ak ni mu war a doxe yàlla may ñu aussi ñu dem ci réew yu bari jaxasoog seeni administration ak euh, état yi nag ni muy doxee foofa ñu xool ne euh, bu ñu comparer ak li ñu war a mën a def ak li ñuy def tey euh, am na différence bu bu mag a mag a mag c'est-à-dire Sénégal waroon naa toll foo xam ne juste boo defaraatee toogaay bi rek ak doxalin wi dinañ fa mën a egg kon ñu xam ne donc ñàkk mën ak ñàkk am yéene ci askan wi moo tax Sénégal tardé ci domaine yu bëri loolu nag mooy politique moo tax ñu jàpp ne am nañ ci lu luñ ci war a mën a liggéey euh, te itam nag bërëb bële ñu dëkk muy département Mbacké surtout dëkk bu tedd bi muy Touba dañoo gis itam ne soxla nañ euh, taxawaay bu wér ci askan wi euh, jàppale leen ndax foofoo tam dafa mel ne dañ leen a boddi ci ni ñuy doxale réew mi amuñu ay représentant fa ñuy yëkkatee di fa di fa teg nit ñi dañuy ñëw rek foofu euh, di ziare génnaat dëkk. mais mais moo ne dañuy tuuba tuumaal euh, Touba ne amuñu ay cadre yu mën a bokk ci administration bi wala ñu mën a bokk ci gouvernement wala mën a jiite réew. Touba ba am na am na ay cadre yu bëri jàpp naa ne sax bokk na ci cadre yi gën a xarañ ci réew mi euh, Touba lañ dëkk wala ñu am fa wàccuwaay bu wér am fay kër donc loolu moom nekkul lay c'est vrai que nag ñiy yëngatu ci politique ñu gën leen a miin. bari na ci ñoo xamante ne effectivement du ñuy cadre mais loolu yëpp bokk na ci li tax ñu dugg ci langue politique gi pour mën a représenter euh, gox ba mën a aussi defar Sénégal. d'accord léegi docteur Abdoulaye Niane su ma la déggee mooy yow da nga nekkoon ci administration bu Sénégal dox fu baree bari gis yeneen réew yi ni ñu doxalee ba suqali seen réew nga jàpp ne Sénégal war naa mën a toll foofu maanaam est-ce que mënoo woon a def ay contribution di wax sa xalaat di di conseiller ñi jiite wala da nga jàpp ne sa bopp moom moo la ci doy. waaw waaw xam nga bon xam nga wax sa xalaat moom dina baax mais boo waxee sa xalaat bu la neexee ñu jël lenn bu la neexee ñu bàyyi d'ailleurs man ci biir administration bari na ay réformes yoo xamante ne nii euh, maa ko jiite woon ànd ak samay nawle euh, muy réforme yu am solo. jëm si la jëm ci administration fiscale par exemple euh, lépp li nga xamante ne nii mooy moderniser administration bi. muy plan bi ñu defaroon pour juróomi at yi nga xam ne dañuy doxal administration direction générale des impôts et domaines man mii maa jiite woon ña ko doon def. yan année la euh, euh, dix 2007 8 boobu deux 11 côté boobu 2008 2012 cinq ans donc euh, tey bari na looy gis administration fiscale ñun ñoo ko jàngatoon ba proposer ko par exemple tey boo demee impôt da ngay mel ne ku nekk ci banque. bu njëkk ñi doon dem administration fiscale daawu ñu def loolu da ngay ñëw ñu recevoir la ci ay bureau yu lëndëm euh, yoo xamante ni nii benn fonctionnaire mooy tëju fenn recevoir la lu nekk man ci am du leer yow mii sa say mbir euh, doo kontaan ndax euh, conditions yi day day xaw a stressant sax léegi da ngay ñëw ay bureau en verre la boo ñëwee dinañ la may ndox nga naan di nga gis chaîne de file d'attente bi ñu wax la sa numéro donc mbir yi dafa changer complètement comme boo nekkee banque loolu bokk na li ñuy wax euh, guichet d'accueil dafa bokk ci programme yi ñu waxoon pour moderniser administration yi code général des impôts sax am na ay réformes yu ñu ci def yoo xam ne suñu jàngat boobu génne woon nañ ko euh, fonctionnaires yi ni ñuy toogee ba ñu gën leen a tàggat waxoon nañ ko ak yeneen ak yeneen maanaam pàcc yi ngay jël ci administration yépp boo ci euh, jàngat tey rek dafa am ay ay ay ay ay jàngat yu ñu ci defoon yoo xam ne nag dañoo waroon àdduna bi aussi demoon nañ ci ay réew yu bari ba Canada France Maroc fu nekk demoon nañ fa xool ñoom ni ñuy doxale ak ñun fi ñu toll ñu proposer ay réformes donc mais li li ma bëgg a wax rek mooy am na lu ñu proposé woon loo xam ne ni jëluñu ko période boobu par exemple appel à candidature dañoo waxoon ne pour nga diriger benn direction wala même direction général dañoo war a wut ay candidats yu bari ñu méngale leen xool ki ci gën loolu buñ ko ci Sénégal ak même bitim réew mën nañ ko ubbil sax waa bitim réew parce que pays yu moderne yi noonu lañu def non biir biir administration fiscale déjà parce que ñun administration fiscale lañ doon doxal direction yi par exemple da dégg direction des domaines dégg direction des impôts dégg direction générale yooyu yëpp dañ ko waroon a ubbi ba ñi ci gën a euh, xarañ gën a maandu mën a toog ca poste yooyu. mais est-ce paase mu paase waaw waaw non loolu la Sénégal ci boppam dañoo war a def loolu muy Sénélec muy faneen ak faneen maanaam entreprise publique. muy poste muy poste muy port muy Lonase yooyu yëpp appel à candidature la waroon doon bu ñu bëggee nit ñi fa nekk nekk nit ñoo xam ne dañuy doxalal mbir yi mais comme politique ak par parparloo moo lal euh, régime mu Macky Sall fii ci Sénégal euh, bàyyi boo gisee impôt domaine par exemple ak administration financière yi. Mhm. Euh, trésor ak yu ci bari am ay problème fan yi boo gisee ña nekk ñëpp ne dañuy politique c'est parce que boo politiqueul duñ la toppatoo moo tax fi mu ne nii boo gisee même élection locale yi passé bari na ay inspecteur des impôts yoo xam ne ñu ngi woon ci langue politique ak inspecteur du trésor est-ce amul amul problème en soi bu fekkee ne loolu du yàq administration bu fekkoon ne appela à candidature dafa am ci post yi ku mu neex mën ngaa dem defi politique mais nag malheureusement boo gañee mairie wala nga am loo am rek gars yi dañu lay convoqué commencé la ne la dinañ la jox tel poste wala tel poste léegi da ngay daal di dugg si ci APR wala dara. du ko defee nga nangu. mais mais docteur Abdoulaye Niane ni ma la déggee ngay wax nii dafa mel ni yow euh, Macky Sall ni mu yoree réew mi euh, ànduloo ci euh, tey yow nga nekk boroomam xam-xam xanaa kon moom su woon pour nga bokk si ñi liggéey réew mi doo dem. non xam nga non bu bu bu ma woon pour ma bokk ci liggéey réew mi duma dem actuellement nii parce que maa ngi ci opposition bi. te mais nekk si opposition bi terewul boo amee xam-xam réew mi moo la jàngal war nga mën a servir réew waaw mais loolu dafa war a nekk ci anam c'est-à-dire ci programme la war a nekk c'est-à-dire que man euh, bu ñu ma woon pour lijjanti ma man sama bopp comme ni gars yi def intéressé wu ma. non réew mi non dama la expliquer rek xam nga réew mi bu ñu la ciy woo day am lu ñu lay tegal. Hmm. loolu ñu lay tegal moo am solo bu fekkee dañ laa tegal ne yow dinañ la régler sa problème. boo ñëwee dinañ leen nommer tel poste wala dara nga ñëw ànd ak ñun ci doxalin bi te doxalin bi baaxul parce que nee naa la doxalin bi baaxul donc li gën a am solo nekkul ñu woola la wala ñu dig la dara li am solo mooy programme ba ñuy doxal or programme bi ma gis nii baaxul donc man foofu laa foofu laa nekk nit ñi nag bari nañ wax am na ñuy coow même Touba ga ma dëkk yow mi xam nga fa dara li ñu léeg dañ naan waaye sa waay haut fonctionnaire la Macky Sall lii Marème Faye Sall moo ko yónni et bon te man Marème Faye Sall mosuma ko gis nit ñi dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy xeeb seen bopp parfois ci jóg laaj réew mi pour changer ko parce que dañuy jàpp ne euh, seeni doomu gox ki dëkk seen wetu kër warul mën loolu parce que ñoom mënuñu ko alors que Touba lépp nga fa département Mbacké lépp nga fa Euh, borom xam-xam yi nga doon wax sànq am na ay médecins am na ay professeurs d'université am na ay ingénieurs. te am na ay magistrats te ñi gën a xariñ ci gën a xarañ nag cest à bu fekkoon daf ko am rek noonu déedéet mais ay ndongo daara la ñu doon. ñu ñu alxuraan jiitu seen dënn ñu ñu ñu ñu bokk ci famille yoo xam ne dañ leen yar ñu maandu. ñoo xam ne nii fi mu ne nii tey boo leen tegoon ci benn poste responsabilité ñu ñu amus tuut li ñuy njëkk a xalaat mooy delluwaat tabax jàkk wala ñu jox seen sëriñ dara mais pas dem Malibu wala ñu dem euh, Cap Vert defi vacances donc loolu euh, askan askanu Sénégal dafa soxla genre nit yooyu ñoo xamante ni dañuy dañuy humble ba pare mën a mën a mën a mën a liggéey parce que boo demee réew yi nga xam ne tey ñoo raw ci monde bi ay Allemagne ay Norvège Europe du Europe de l'Est Europe du Nord Europe du Euh, façon gouvernance bi ñu am mooy gouvernance sobre et vertueuse boobu. Macky Sall doon wax te mënu koo mënu koo def maanaam ay nit ñoo xam ne seen xel nekkul ci caaxaan ak noos. façon intellectuelle yi dëkk côté boobu nag bu leen gisee da gis ne ñii ay taalibe lañ seen xel nekkul ci noos dañuy liggéey ba euh, askan wi gis seen bopp ba pare ñu toog ci réew mi loolu nag la Sénégal war a jëm. d'accord léegi euh, docteur Abdoulaye ñaan benn question rek ci loolu ñu doog revenir nag ci parti Teranga Sénégal mooy yow. président Macky Sall mosulaa woo pour nga ñëw bokk ci gouvernement wala mu denk la benn ndomb tànk ndax mosul yónnee si yow amul ndax tamit amul benn nitam boo xam ne mos naa ñëw si yow pour sàkku ko. xam nga loolu moom duma la ci tontu tontu bu direct parce que dama jàpp ne boo nekkee ci réew euh, am tuuti ci xam-xam ñi yore réew mi ñu ci bari nga bokk ak ñoom jàng ñu weg la lañ nekk dinañ la ci woo. kon loolu rek laa lay mën a wax mais nag woo la ak nga dem bokk ak ñoom loolu moo moo bokkul mais buñ ma mësul woon a woo wala wasuñu maa wax dara ma xam ne kon tekkiwuma dara ci réew mi. mais léegi nag euh, man docteur Abdoulaye Niane leen leen man tamit du mën a comprendre benn mbir yi mm-hmm. ndax mënuloo nekk jàng am xam-xam mm-hmm. euh, ñu woo ci mbir. Euh, nga ne nga ne yow euh, doo dem ndax ñooñu nañuy doxee mais yow man nga dem ba pare ñoom nañuy doxee yow nga nga soppi ko ndax ki la pour nga dem il faut nga am loo ko tegal condition yoo ko tegal na ko nii ak nii bu ma la joxee sama xalaat nangam ak nangam bu ngeen trouver consensus ci loolu war nga man dem. non xam nga d'abord nee naa la ñun dañoo xam nit ñi doxale réew am na ay choix yoo xam ne nit ki bu ko defee xam nañ ne kii mënu koo jékki-jékki changer ko euh, loolu nag ku nekk mooy xam. Euh, naka lay juger donc dafa am loo xamante ne ni mënul gaaw a changer sur sof ñu toog autour d'une table changer réew mi def genre état généro donc dafa am ay option fondamentale yu diis yoo xamante ni bokkuma ak ñoom kon te loolu mooy politique bon xam nga xam nga bu ma la bu ma la détaillé d'abord. ah gis na euh, ñoom waa waa juba di bari na ci. Euh, ñëpp jubadiwuñ bokkuñu jubadi heureusement mais jubadi bari na ci cest à transparence bi ñu war a def ci ci ci ci ci ci ci ci ci euh, moomeelu alal bi moomeelu réew mi alalu réew mi loolu loolu des na lu bëree bari marché yi ni ñu koy passé des na euh, da ngay gis kenn ñu nomee ko fenn mu jekki-jekki yore xaalis bu dul jeex bu ne gàññi te mu leer na ni kii salaire am eggul foofu marché yi ni ñu koy passé comme ni ma wax sànq des na te nag ñun dañoo nekk ci biir réew mi di jaxasoog waa réew mi nekk aussi fi ñuy décider ah bari na lu ñu xam ci réew mi donc am na loo xamante ni nanguwuñ ko beneen aspect bi mooy euh, président Abdoulaye Wade dafa commencé woon di diversifier partenaires yi maanaam di ko di jaxase partenaires yi France ga am na fi place mais Chine am na fi place pays arabes yi am nañ fi place euh, Inde am na fi place Turquie mu ngi doon dugg mais loolu dañ ko wàññi bu baax a baax a baax daal di joxaat France Euh, place bo place bu bu bu bu ëpp. mu yor économie bi mu amoon mu mu yoraat ko na ko yore woon après indépendance te loolu dafa dañu commencé woon di def rupture histori historique. te dafa am ay conséquences wala. Ah, yu bëri euh, parce que ki la moom ki la moomoon yilif la su fekkee ne dafa teg ci yow loxo nam la doon xoolee ëllëg rek la lay xoolee tey te loolu nag il faut ñu équilibrer loolu il faut ñu demaat ba ñu xoolee ñu comme réew mu souverain complètement nga xamante ne nii liñ fi am. seen ñàq moo leen koy may mais du ñëw rek te bu yóbbu. d'accord euh, jërëjëf euh, docteur euh, Abdoulaye ñaan léegi yow dugg nga ci wàllum politique taxawal parti bi nga xam ne mooy Teranga Sénégal mais politique Sénégal est-ce que xawul nekk lu compliqué est-ce que nekkul aussi lu jafe ndax danga nga fi fekk benn terrain boo xam ne pendant ay at yu baree baree bari ay hommes politiques am nuñ doon doxee. jël xaalis di jox ay nit wala nangam ak nangam yow nga ñëw bëgg am loo gëm est-ce que dina yomb euh, ci docteur Ablaye Niane. non loolu yombul yombul du tout bu ma la waxee ne yomb na damay wax lu ma neex yombul ndax li nga wax nii par exemple période bi période parrainage lañ nekk nit ñi boo leen nee parrainé ma li ñu lay njëkk a wax mooy da nga ñuy financé wala nga jox ñu sukkaru koor am na sax ku ku ku ku ku wax démb ne dañ koy jox un million sukkaru koor parce que am na temps de parrainage façon yooyu. mooy tax Sénégal du gaaw a avancé mooy tax aussi askan wi politiciens yi jàpp ne euh, amuñu amuñu amuñu yërmande euh, ñoom politiciens yi ci boppam loolu lañ jàpp ñoom itam duñu am yërmande ci ñoom parce que nit koo chantage day yoon rek mais bu jotee ci li mu bëgg da lay da won ginnaaw sànq nii rek bi may yéeg tey euh, suma biro maa ngi waxtaan ak sama benn militant bu mag bu nekk Touba ñuy waxtaan mu naan ma. am na quartier boo xamante du ma tudd quartier bi ndax bëgguma ñoom ñu frustré wu bu ñu ko yëgee am na quartier boo xam ne day am na ay maire yu fa nekk mais nee nañ il faut ñu ñu ñu ñu waxtaan ak yow avant ñu lay jox seen i parrainage mais waxtaan bu fekkee danga nekk ci parti liggéey parrainage mais jox ko responsable bu ñëw laaj la mais waxtaan boobu mooy da ñoo war a financer wala danga nga ñu jox lii loolu nag soo ko dee gis te yéene sa askan te yow politique bi nga xam ne ay ay ay ay ay coono rek moo la ciy fekk ndax am nga sa liggéey mënoon ngaa def leneen lu gën a nooy aussi mais bien sûr politique bi coono la coono la parce que euh, sa temps ngay sacrifier sa temps liggéey sa temps famille euh, sa ni nga ko waroon a defee doo ko defee noonu man dama mujj obligé démissionner administration fiscale pour mën a consacrer wu ci politique bi te mënoon naa bañ a démissionner mais dama mujj démissionner parce que mënu moon a boole ñaari yi. mais rëccu woo wu ma ko du tout ah yow boo ma xoolee xam ne rëccu woo ko sama bureau nga ma euh, maa ngi employé lu ëpp. quinze xale yoo xam ne maa leen jàngal di leen emploi di leen fay salaire euh, nit ki bu amee xam-xam euh, gëm boppam euh, war na mën a dem. war na mën a demal boppam mais politique bii ngay wax yow bi nga bëgg yow est-ce que di nga yomb di nga ko di nga dina yomb nga imposé ko ñu ëpp ci sénégalais yi. waaw xam nga loolu moom effectivement du yomb mais nag dama jàpp ne Cheikh Anta Diop jaar na fi jéem na ko. am na ñeneen ñu fi jaar ñu ko jéem man itam ci ci ci saawa boobu laa nekk jàpp ne. comme ni ma royee ku mel ne Cheikh ci dëggu nit dina ñëwaat ëllëg roy ñu roy ci ñun maintenant nag li ñu bëggoon mooy mu sotti ci suñu génération ci ñun parce que kenn du ma dégg may wax lu bon pour wax lu bon kenn du ma dégg aussi ah jàpp naa ne itam du ma jëf lu bon parce que loolu yarewuñ ma ci loolu euh, du ma du ma du ma du ma indi fitna aussi ci réew mi parce que gëwuma loolu man gëwuma ne fitna mooy ñëw mais par contre dinaa wax suma dëgg Euh, sénégalais nag dafa dem ba dëgg moom boo ko waxee te boo la yowoo ci saaga wala xeex duñ jàpp ne dëgg am na loolu nag lañ war a lañ war a teg fële ci xel yi ak ci jikko yi lañ war a wax ak nit ñi paa ci euh, seen xadar ak seen i xol pour ji pour pour pour indi na man loolu bokk na ci suma façon politique yombul mais jàpp nañ moo mën a defar Sénégal te nag ñun dañuy politique pour que suñu doom parce que man euh, yàlla may na may bant dama bëgg ëllëg ñu nekk ci réew mu dal. chaque jour may politique dama leen di xool ñoom dañuy commenter ak man aussi suma suma suma fait politique dañuy commenter ak man nit ñi ni ñuy politique samay débat lépp samay débat sama sama doom bi gën a ndaw euh, léeg-léeg bu ñu ko woowee ci débat yi def naan bàyyi leen bàyyi leen maa woo lii rek la di kaas parce que moom xam naa ne li ma dul gis ca kër ga ak yooyu jàpp na ne politique coono la ci moom mais ñeneen ñi gën a nekk mag euh, macha allah dañuy seetaan di commenter léeg-léeg ñu ne ma. mais di nga di nga yéex a jot ci réew mi ndax ñu ëpp ci société bi gëmuñu loolu. bon c'est vrai que xam nañ ne yombul xam nañ ne yombul euh, benn côté gêné na leen beneen côté bi tam euh, ni nit ñi ñëwee euh, di di di di di di di di di di adhéré wu dinañ gis ne affaire baa ngi dox am na parce que nag dañuy gis ay nit di ñëw mm. politique bi jom laa ci def boo gisee élection yi passé ah, score bi ñu am Touba mm. nga war a xam ne ñii du ñuy como te ànduñoo kenn seen bopp la ñu àndal euh, yàkkamtiwuñu ñoom effectivement gis nañ ne sàmm euh, me prend de temps euh, metti na ci man waroon naa mën a def leneen waroon naa leen gën a kii mais nag réew mi jar na ko jàpp naa ne yar naa leen ci aussi ñu xam ne dañoo war a jël seeni responsabilité donc foofu awma ci problème. d'accord. gis nañ taxawaay bi nga am ci élection locale yi ci département Mbacké xañ ne dina si ñëw léegi ñu wax ci élection législative yi yow da nga bokkoon ci benn jot na euh, sa naataango euh, Boubacar kamara jiite euh, jéngu tabax yéen da ngeen a jël jéngu jël tabax bi coalition jot na ngeen jël jot na bi def ko tabax jot na def coalition jot na coalition tabax jot na pour dem ci élection législative yi lan moo tax ngeen taxawal coalition tabax jot na bon maa ngi remercier bu baax bu euh, Boubacar kamara sama mag la surtout plus que natango parce que euh, koy patriote ak mag moom la def foofu moom daf ma woo ne ma foo toll ci législative yi ma wax ko ne ko ñoo ngi suñu coalition jot na di xool euh, ñan lañ mën a àndal ñoo xam ne bokk nañ programme mu proposé ma ñu def coalition politique mmh. ma nangul ko ko maanaam coalition boo xam ne programme la ñuy teg te dañuy xool fu sori fu bokkut ak juste benn élection man nangul ko ko muy koo xam ne. ñoo ah, bokk dem na normalement day dem ba 2024 ba après 2024 bu neexee yàlla loolu la ñuy ñaan euh, ñu waxtaan muy koo xamante ni aussi dañoo niroo cursus dafa jaar administration nekk docteur en droit comme man euh, dem IGE nekk avocat international et cetera euh, man aussi may liggéey sur l' international xam lan la réew soxla. ak lan mooy xew bitim réew ñu baree bari dañuy nekk ci réew mi di coow ak di wax mm-hmm. mais xamuñu bitim réew la fa am donc loolu aussi dafa bokk ci li nga xam ne moo ñu rapproché euh, muy koo xamante ni aussi euh, am na courage wu ay idéem euh, nit ñi sax léeg-léeg dañ koy critiquer naan bu toogee fi ëllëg day toog fële parce que moom deful politique muy une fin en day liggéey te bu gisee lu mu ne lu mu lu ko neexul da koy wax man aussi noonu laay defee politique. waaw mais euh, juste question. par exemple tey yow euh, ak Boubacar kamara tey euh, ñëpp xam nañ ne ay yéen ay borom xam-xam ngeen mais yéen bu ngeen nekk ay borom xam-xam. juste question rek tey yow docteur Ablaye Niane ak Boubacar Camara ñëpp xam nañ ne ay borom xam ngeen mais yéen borom xam yi parfois bu ngeen di wax ñenn ñi duñ leen déglu. di topp ñoo xamante ni tey amuñu xam-xam. wala boo gëstu si ñoom démb. nga xam ne peut def nañ ay luubal wala dara est-ce que. du leen faral di euh, frustré wala di leen di merloo nan la leen di def. waaw non xam nga euh, politique dafa nekk benn euh, benn enjeu boo xamante ne nii manipulation daf ci bari. ñoo ñooñu ngay wax amuñu xam-xam peut-être xam-xam bu jub lañ amul mais am nañ xam-xamu politique cest à buñ toog ñooñu sax dañ naan leen moytu leen Ablaye Niane ak Boubacar Camara yi euh, parce que ñoom xam-xamu tubaab lañ yore lii lële am na sax démb ku ma gis benn benn benn benn publication ci Facebook ma gis ñu ne euh, doctorat bokkut ak am ko am doctorat bokkut ko am xam-xam du jubluwuñ ci woon man naa ah, peut-être dañ doon wax rek mais ñooñu mooy façon yi nga xam ne dañuy manipuler nit am réew moom allah kulli al xam moo koy doxal. Euh, c'est vrai que nag mën nga am diplôme ba pare euh, sa xam-xam xaw a des loolu am na mais nag ñi ñi ñi am xam-xam moom souvent dañuy jàng am seen i diplôme léegi nag. frustre non mais man damaa gis ci Sénégal ñu am xam-xam ñoo xam ne man xam naa ne ñii am nañ xam-xam. Hmm. ci domaine bi nekk. Hmm. te Sénégal yi duñ leen faral di jublu. baal ma léegi c'est foofu laa jëm cest à damay wax ne loolu effectivement métti na ci gis-gis mais nag boo duggee ci politique da ngay accepter loolu day am. parce que nag population bi aussi seen niveau d'éducation ak formation dafa xaw a des soo xoolee ñi jàng ci Sénégal gi bariwuñu ñi xam li ngay wax itam bu fekkee eh, da nga naan diplôme tel la même boo nee doctorat la am nit ñi dañuy foog ne docteur buy faj nga rek ah ñu bari duñ xam lan mooy doctorat duñ xam itam lan mooy différence ku am doctorat ku am master. wala koo xam ne day wax nii rek mais am njàngam soriwul. donc donc foofu euh, suñu niveau peuple ak culture bi. nekk ci population bi mooy mooy indi loolu mais nag loolu moo tax ñu war a dugg ci politique justement parce que am nga xam-xam xam nga différence bi da war a fexe ba yokk scolarisation bi yokk njàng mi muy njàngum arab muy njàngum alxuraan muy njàngum tubaab ba nit ñi ku nekk mën a juger bu fekkoon nit ñi am nañ niveau boobu mën a juger rek li ngay gis nii lu ci bëree bëri dina wàññi. léegi euh, coalition tabax jot na nee nga yéen mën na passé sax élection législative yi léegi ñu wax ci élection législative yi ak coalition tabax jot na mhm. euh, ñaata parti ñoo nekk ci biir wala euh, wala ay ay ay coalition waaw coalition tabax jot na 34 partis et mouvement bi ñu defee suñu assemblée générale moom la depuis lors nag. am na ay coalition yu ñëwaat ak ay parti yu ñëwaat mais vingt vingt sept yi ñoo signé woon semaine ba ñeneen ñi ñi ngi leen di woo ñuy signé parce que am na ñoo xam ne dañoo adhéré te fekk ñu voyagé wala ñu am ay représentant yoo xam ne mënuñu signé mais daal ñi ngi yaatal euh, jàpp nañ ne tey Sénégal foo jël ci Sénégal am nañ fa représentant li ñu bëgg nag mooy yaatal affaire bi ba dugg ci euh, euh, coalition yu gën a yaatu parce que ñun Euh, baare wuñ suñu bopp par rapport à l'opposition bu ñu sañoon sax opposition bi day am liste unique pour imposer Macky Sall cohabitation parce que bu opposition bi amoon liste unique ñëpp ànd. lu ngeen jublu ci cohabitation. cohabitation c'est-à-dire bu boobaa bu fekkee ñoo am majorité assemblée nationale premier ministre bi ci opposition bi lay bokk bu ko defee opposition mooy doxal ba 2024 ba 2024 ñu ba seen mais loolu est-ce que doon na pëccëxoo ci réew mi docteur. non lu muy indi pëccëxoo. su fekkoon ne opposition bi ñëw na programme bu set la ñuy teg teg guvernement bu mucc ayib doxal loo xamante ne nii li ñuy xeex fi mu ne nii euh, dina dina génn ci réew mi luubal beek yenn suuf si nga xam ne dañ koy saax-saaxee euh, xaalisu réew bi nga xam ne dañuy signé ay contrat yoo xam ne du fu muy jaar contrat yi nga xam ne dañuy jékki-jékki joxe ko ci yaama neex marché yi loolu yépp day dañ parce que opposition bi bu ñu àndee teg guvernement bu taxaw ku nekk di xool sa morom ah ku ku luubal ñu ne la génnal keneen toog sa place réew noonu lay doxee parce que nit ki moom bu fekkee da nga ko bàyyeeg bàyyi euh, noonu rek muy dem. day day def lu ko neex. léegi coalition tabax jot na. Mhm. yow yaay coordonnateur bi instant bii nii. yaay président bi. Euh, léegi dafa am yeneen pôle yu fi nekk. Mhm. tey par tey coalition Yewwi Askan ma ngi fi. Mhm. coalition Wallu senegal ma ngi fi. yéen coalition tabax jot na ma ngi fi. Euh, tey su dee yéen a ngi jéem. pour jéem a ànd ak coalition Yewwi Askan Wi. waaw wala déet. non ñun excluruñ kenn Yewwi Askan Wi wallu ñoom ñëpp. la ñuy waxal ñi ngi wax ñi wax ak ñoom ñi ngi wax ak ñoom am na ñu ñuy waxal ñuy wax ak ñoom amuñu problème mu ànd ak kenn parce que li xew démb ak bërki démb. war leen a yee. nañu am na lu ci ñaaw am na ci lu ci rafet mais ñun ëllëgu Sénégal la ñuy xool euh, dañu jàpp ne. Euh, politique mooy am ay tolof tolof mais bu fekkee Sénégal moo ñu ñor bu fekkee ne reconnaître nañ qualité ñii ak ñii ku nekk dafa war a toog sa place ñu ànd dem. bu ñu bëggee changer réew mi imposer beneen majorité euh, fii ci réew mi pour que sénégalais yi seen coono jeex dañoo war a bàyyi nit ñi ñuy calculer par exemple xool Ablaye ñaan ne kii kër cadre la département bi mu dëkk bari na mbooloo te am nañ influence Sénégal nañ fexe ba du fël. am na ñoo xam noonu la ñuy xalaate dañu nekk au niveau national bëgg faa ferenkulaayu euh, bëgg Sénégal xam leen ñoom kese fu Ablaye Niane ne tël ñu ñu ñu dóor ko mbéy waaw bala maa jàll fa est-ce que tamit tey du docteur Ablaye Niane hmm. euh, du càgg ne dañ laa ragal ci benn côté hmm. ndax dañuy wax ne docteur Ablaye ñaan mii euh, bu ñu fi nekkee di dof-doflu hmm. ba ba muri di découvrir ko ak ni ñu toll ci àdduna bi ak surtout département bi mu nekk ñu xam ko bu baax étudiants yi xam ko ràññatle ko surtout bu bu ñu ko defee dara il faut que nit ñi gëstu euh, kan mooy docteur Abdoulaye Niane bu ñu ko dog bu ñu ko gëstoo ci wàllum yaram jikkoom gëstu ko ci wàllum njàngam est-ce que du du ñu njort ne kon docteur Abdoulaye Niane dafay jekk-jekk rek fiiree ko rek nekk benn homme politique boo xam ne tey euh, man naa sax maanaam day bokk si daay yu gën a sérieux pour laaj réew mi est-ce que ñenn ñi du loolu lañ ragal. waaw mais Abdou Khadre loolu mooy dëgg bi euh, d'autant plus que xam nañ ne aussi. ñi ma xam xam nañ ne am naa ambition boobu et que awma lu ma ci tiit wala lu ma ci ragal wala lu ma ci laam-laamee donc ñoom xam nañ loolu maintenant nag nekkuma kuy dem à l'aventure 2019 bi ma waree jàppale Ousmane Sonko bu ma neexoon ma ne candidat la jéem a wuti comme ñëpp mais defuma ko parce que boobu duggaguma assemblée comme nekk nekk député mais suñu yàlla defoon tey ñu dugg assemblée nationale wax ak Sénégal bañ gën ñoo xam gën a xam suñu capacité mais wax dëgg yàlla dinañ am ay ambition yu ñuy yu ñuy wanewaat donc ñu ci bari moo tax nag Boubacar Camara ñu war ko rendre hommage par rapport à politiciens yi fi nekk moom nee naa la moom woo ñëw euh, pour ñu def coalition bi ñu nangoo automatiquement sans discussion mu ne ma yow yaay jiite. nekk nekk président bi. kon kooku am na yéwén am na générosité ñu bari nag loolu duñ ko def xam nañ ne kii dayoom ay gën a fa mais dañuy bañ mu fël wala nit ñi gën koo xam. maanaam jalousie wala. jalousie la jalousie la mais nag loolu amul problème parce que politique aussi euh, ku nekk dangay ngay fexe lijjanti sa bopp peut-être ñoom noonu lu ñuy lijjantee suñu seen bopp mais man dama jàpp Sénégal bu ñu ko bëggee defar euh, bu fekkee am ngay ambition da war a ànd ak nit ñu seen loxo set ñu am xam-xam te man laa wax dëkk mais su fekkee ne ay gars yoo xam ne foo leen ne euh, waaw ñu sukk mel ne ku ànd ak seen sëriñ loolu Sénégal du baax te nag homme politique Sénégal yu bëree bëri ay taalibe lañ soxla mais bëgguñu ay compagnons. léegi euh, coalition tabax euh, jot na yow yaay président bi léegi yéen seen bëgg-bëgg bu mënoon a nekk mooy opposition bi ñëpp euh, ñëpp nekk benn loolu bu mënul am tamit su ngeen mënee ànd ak yeewi di ngeen mën dem ànd ak yeewi bu ngeen mënee dem ànd ak wallu est-ce que tamit di ngeen dem mën a ànd ak wàllu su dee tey par exemple tey mënu leen a ànd ak yeewi mënu leen a ànd ak wàllu est-ce que coalition tabax jot na pare na pour dem ci élection législative bi moom rek. waaw loolu mooy plan B plan plan A mooy éventuellement toute l'opposition réunir mu nekk liste unique plan B mooy ñu ànd ak benn pàcc ci opposition bi euh, par exemple wàllu wala yeewee comme ni nga ko waxee plan C mooy ñu demal suñu bopp ñun kese euh, plan yëpp moom moom lañ pare ñun. pour mais ngeen seen bopp. mais mais bien sûr ah yooyu tam xam nga boo xamee Boubacar Camara xam Ablaye Niang kay xam ne du du gars yi du gars yi. du gars yi kon li ñuy négocier dafay faral dañuy sedd aussi day faral di bëri. non non non non ñun amuñu problème boobu. ñun moom euh, franchement politique engagement la ci ñun dañu jël suñu temps def ko ci jël suñuy moyen def ko ci te dañoo am gëm-gëm ne Sénégal am na rôle bu ñu ci war a jouer ndax Sénégal soxla na euh, li liñ koy proposé loolu moo tax ñun suñu indépendance dañ koy assurer fi mu ne ngi ci parrainage yi teg nañ suñu caution ba pare li ñuy def mooy tey bu ñu nañu woon da ngeen di déposer ñu déposé maintenant nag ci biir cadre boobu aussi comme dañoo seq ak Sénégal ñeneen ñoo ngi tàllal suñu loxo ku gi ñi ngi fexe aussi def loo xamante ne ni dinañu may ndam ñun kuje gi bañ mën a jiite réew mi mooy liste unique boobu ma lay wax donc ñun plan yëpp lañ intégré pare nañ plan yëpp nit ñaa ngi ñëw ci ñun di ànd ak ñun ci plan ci plan boobu. mais est-ce que tey euh, docteur Abdoulaye ñaan euh, élection législative yi ak coalition boo mën a bokk est-ce pare nga pour nekk. Euh, liste départementale ndax ñu bari dañuy daw liste départementale di dem liste national bien vrai que yow yaa yaa nekk président coalition bi ndax docteur Abdoulaye Niane pare pour dem ci département bi. non xam nga mbir mi du demee noonu Abdou Khadre euh, su fekkee ne da ngaa nekk tête de liste bi euh, fekkee ne yow yaa jiite coalition bi te ñëpp jàpp ne yow da war a jàll pour défendre programme coalition bi da ngay xool fa nga gën a amee chance nga dem fa parce que nag wax wax dëgg def ci bokk. doo dem ci département alors que amuloo peut-être yow am nga benn doole bi mais yeneen doole yi nga fay mën a am mënulaa may nga gañe ngay dem di sacrifier sa bopp foofu yóbbu assemblée koo xamante ni mën naa am yow yaa waroon a mën a jiite. bu nekk tedd bu ngeen ndax di nga nangoo jiite département Mbacké. waaw am na ñu ko xalaat am na ñu ñëw ci man euh, wax ma ko dàqu ko woon mais dafa mel ne ca kaw ñu baree baree bari loolu neexu leen euh, mais ña dëkk ca dëkk ba moom. di def politique représenté fa yeew yi ñëw nañ sama kër proposé ma loolu mais nag condition yi ma leen posé woon posé woon compliqué wul mais dafa mel ne am na ñu mu jubul donc loolu dam loolu pour le moment doxul niñ ko xalaate woon mais aw ma woon problème ànd ñoom parce que li jot a am ak ñoom li am bu ko boolee dina jafe nit nit gàñee ñu foofu wallu même chose ñëw nañu waxtaan ak man ñoom itam te ña nekk foofa te jàpp naa ne bu ñu àndoon tey war naa mën a am ñu am dara donc loolu comme li ma la ko waxee rek man aw ma aw ma problème par rapport à li xewoon dans le passé parce que àndoon naa feeg waa Yewwi waa Pastef àndoon naa feeg waa Wallu aussi ci élection yi dem bay bëgg egg ñu am ay problème ci investiture yi ma demal sama bopp mais ba léegi ubbeeku na li ma amal solo rek mooy euh, gox ba soxla nañ ñu te te dinañ dox ci ci loolu. d'accord léegi euh, docteur Abdoulaye Niane euh, ñu wax ci li nga xam ne nag moom jëm ci wàllum parrainage bi parrainage bi tey coalition tabax jot na. Euh, yéen a ngi ci parrainage bi. waaw ñu ngi ci dox am nañ réunion tey rek pour euh, suñu représentant ci communes yi Sénégal yépp ñu waxtaan ak ñoom ci méthode de collecte bi ak euh, ci jéego yu ñu dese fi mu ne nii am na ñuy remonté di ñëw dakaar ñoo ngi saisir donc parenage bi ñu ci dox. nañ ci war dox ah bien sûr ah, ñi am nañ ci xel mu dal bu baax sax. Ah, mais mais dafa am ñu doon wax naan parenage bi waruñu woon ko boole ci élection yi yow lan moo ci sa xalaat. xam nga élection moom waruñoo bàyyi mu nekk pëccëxoo donc ñëpp d'accord nañ ne war na am ordre mais dañ ko war a def ci anam yu set mais parrainage bi li tax kenn d'accord ci y compris ñun mooy euh, façon la pour régime bi ku ñu bëgg a éliminer ñu éliminer la ndax bu ñu lay éliminer doo am ku la layal mën nañoo ñëw ne da nga am ay doublon wala da nga euh, say mbir matul wala région tel danga fa faa manqué mais kan moo kan moo koy saytu. kan moo koy fekkee bu fekkoon dafa am autorité indépendante. ay nit ñu maandu ñuy saytu élection yi bu ñu nee parrainage cent mille électeurs sax. amul problème nit ñi nañ ko wuti mais fi mu ne nii même bu ñu ñëwoon dix mille électeurs tey autorités yi koy def manduwul nga xam ne ku ñu bëgg a bloqué dañ lay bloqué kenn du ci nangu ñun foofu mooy suñu problème ci parrainage yi moo tax nanguwuñ ko. Euh, lu jëm ci wàllum euh, parrainage bi aussi euh, dafa am ku ma déggoon benn leader mu ne. moom dafay woo opposition pour ñu boycotter élection législative yi ndax parrainage bi anam bi ñu ko def jaarul yoon li mu député yi nga xam ne wàññi nañ ko ci liste nationale bi tamit loolu tamit euh, jalgati yoon la ndax yow ànd nga ci idée boobu. noonu non moom ci démocratie warul warul waruñu ko gaaw wax warul gaaw am te li ma gis nii itam amul dara lu tax ñu war a mën a boycotter parce que boycott mesure bu extrême la. Euh, démocratie participation la laaj te boo boycotté gars yi continuer def seeni élection mën naa am njëriñ li nga doon bëgg am ci réew mi doo ci am donc ñun nekkuñu ci boycott. mais député yi ñu wàññi député yi loo sa xalaat député yi. Ah, manoon nañoo am beneen solution effectivement. comme ban euh, maanaam fexe ba euh, yokk li mu député yi sert député yi ñu bool ñu yokk ko ba pare éliminer conseil au conseil de collectivités territoriales parce que conseil boobu moo amul benn sens te benn assemblée nationale bis la. lu ëpp cent personnes ña nga fa di fayee ko weer di yore ay 4 x di yàq alalu réew mi te amul dara lu ñu yokk ci réew mi. nga am HCCT waaw au conseil des collectivités territoriales mooy li Aminata ngi Ndiaye di diriger. Mm-hmm. nga am loolu am li Idrissa Seck di diriger am assemblée nationale ñetti instance la yoo xam ne daanaka ñooyam li ñu def amul sens. Euh, donc dañ nga xalaatoon ñu dindi conseil économique social environnemental ak au conseil des collectivités territoriales. ñaar yëpp la ñu a dindi bàyyi fi assemblée nationale jox ko doole. yóbbu fa ay député yoo xamante ne nii dañuy liggéey pour askan bi léegi nag institution yi nekk ci réew mi pour saytu affaire te affaire affaire collectivité territoriale yi wala affaire économie ak sociale bari na ñu saytu ko. waaw mais euh, docteur lii ngay tuumaal euh, institution yooyu bëri na ci Sénégal yi loolu la ñuy tuumaal assemblée nationale ndax soo waxee ñu ne la am na député yoo xam ne du ñëw ñii dañuy nelaw ñii du ñu voté ay loi ñii tàccu lañ fay def. waaw mais assemblée dañ ko war a changer dañ ko war a changer jox ko gëdd ay nit ñu am solo. nekk fa loolu nag responsabilité population bi la aussi parce que population bi itam bu ñuy fal député nit ñëw di di di théâtre indi xaalis bu bari ñu xam ne kii jàngul xamul li muy def ñu daw parce que xumb na ñu dem. topp ko am na ñoo xam ne liste national ñun suñu député yi nga xam ne tey ñoo nekk ci Touba ñoom du ñu ñemee dem ci euh, liste départementale mais ci liste national la ñuy dem. Euh, li mel loolu mënoo ci dara. xam nga looloo tam mooy li ma la wax rek mooy responsabilité homme politique yi nekk au national su fekkee dañoo bëgg. ñi leen di représenté au niveau local nekk ñoo xamante ne nii duñ leen mën a concurrencer au niveau national maanaam da ngay ëpp nit ki xam-xam euh, xam ne kii du mën a nekk président la république du mën a nekk sax ministre nga tabb ko ñeneen ñi am xam-xam ak yooyu nga ne ñi dañoo am ambition xaaral ma bloqué leen tant que ñi ngi def loolu askan wi dañoo war a xool ñii def loolu ñu ñu ñu eh, ñu ñu ñu xam ne ñii doxuñu ci yéene pour defar Sénégal mais ci politique politicienne la ñu dox. Euh, jërëjëf euh, docteur Abdoulaye Niane su ma la déggee ni nga waxee ni sànq mooy euh, tey coalition Yewwi su doon ñi nga xamante ni rek ñoo nekk ci département bu Mbacké rawatina fi nga xamante ni mooy Touba bu doon si ñoom rek la des ñoom pare nañ pour nga pour nga jiite leen te dinañ am fierté aussi pour nga pour nga jiite leen si mbir yu baree bare bare su ma la déggee mooy kon ñi nga xamante ni tey ñoo nekk ci kaw au niveau national. ñoom Déthié Fall ñoom Ousmane Sonko ñoom xalifa Sall ñoom Aïda ñoo ñu ñoo ci d'accordul Ablaye Niane jiite coalition bi au niveau départemental. non du ma la tontu directement ci li nga wax noonu ma c'est vrai que analyse bi euh, correcte na de façon globale mais du ma tudd tur xaw ma aussi li xew mën naa am itam dañoo teg ay règles yoo xam ne bokkut ak man li ma bëgg a def parce que liñ ma wax. mooy effectivement ñi jiite euh, coalition yi au niveau local ñëw nañ waxtaan ak man rafetlu ne dañoo bëgg ànd ak man ma ne leen rafetlu naa loolu maintenant ci anam yii la c'est-à-dire nañ ma woo euh, ñi jiite coalition bi ma waxtaan ak ñoom ci euh, principe bi suñ ma wooyee rek ma waxtaan ak ñoom ci principe bi mën nañoo ànd mais duma ñëw daal ne damay dugg ci coalition bi dem déposer sama sama sama sama sama candidature dugg ba ci biir ëllëg leneen di ma fekk parce que man politique wu ma noonu te tollu ma noonu. ci politique dañu war a waxtaan ba juboo ci kàddu ma doog dugg ay ay ay ay ay nawle lañ parce que coalition laa jiite comme ñoom maintenant nag. ñu bari dañ naan ma non da ngay ñëw dugg boo duggee ba pare ñu doog a waxtaan ma ne leen non ñun passé nañ foofu passé nañ foofu. ndax yow mën ngaa xalaat dugg ba pare duñ la investir. non de investir moom ñemewuñ ma ko bañ a def xanaa bu ñu bëggee gagné parce que munoo am munoo am nombre de voix yi ma am ba pare ñu bañ laa investir loolu moom kenn wax ko. Ah, waaw mais nag mais nag du man kese dama am ñu ma àndal. c'est-à-dire coalition nationale la ñu yore jot na donc bu booba bi discussion bi am euh, loolu la bi tabax jot na amee itam mu gën a diisati donc ñun bu ñuy discuter dañuy discuter lépp. bu ñu d'accord ñu doog a ànd ak ku ñu àndal. mais du ah du mais mais nag euh, docteur discussion yi tey par exemple tey yéen ak Yewwi. Hmm. mën ngeen a am consensus au niveau euh, du département de Mbacké. bañ a mën a am consensus fi nga xamante ni par exemple tey Kolda mais fi ngeen am consensus ngeen ànd foofu fi ngeen amul consensus peut-être di ngeen fa am ñu ngeen fa amal euh, consensus ndax élection yi passé euh, yow da nga demal sa da demal sa bopp waaye ci ñi nga àndaloon jot na am na ñu si nekkoon ci wàllu. no xam nga élection départementale yi euh, locale yi bokkut ak législative yi législative yi liste national bi moo tax groupe bu nekk da ngay dajale sa doole yépp pour liste nationale yi nga am député. donc du négociation département par département négociation département dafa war a ànd ak négociation nationale bi loolu moo tax élection yi bokkul bu doonoon comme local yi la effectivement mën nga jël sa doole foo ko ëppee rek nga def ko parce que booba département la wala mairie. Hmm. mais nag affaire yi bokkul. fi mu ne nii ah, yeneen façon élection la donc ñun euh, du ne dañuy d'accord ci lépp mais nag waxtaan moom bu amee consensus am di nga bàyyi fii jël fële loolu rek moo ci amoon solo mais loolu la laa gis ne ñoom euh, doxewuñ noonu ak ñun. d'accord ah, mais mais docteur euh, damay dégg euh, xaw ma am na wala amul ka ne euh, président Ousmane Sonko waxoon nañ ko pour mu woo la téléphone mais dernier moment woowu la téléphone beneen bi tamit ñu gis ne du Mbacke Ndaw am na ñu wax ne yow bu dee am na benn link ak Yewwi yow yaa fexe link boobu am ñu gis fan yi fan yi mu mel ni dafa bëgg a dem moom Yewwi lan ngay expliquer ci loolu. non bu dee bu dee Ousmane. ah am na am na benn appel bu ma def il trois semaine ci màggalu Daaru Musi mais boobu ci guddi la maa ngi woon Daaru Musi mi ngi fa woon jotante wuñu après woowaat naa ko ñaari yoon envoyé ko message mais gisaatuma appel am donc euh, noonu la demee parce que euh, wax aussi ci koor lañ nekk ci àjjuma lañ nekk wax wax dëgg def ci am solo te booba nit ñi ñoo doon insister pour ñu waxtaan euh, comme li ñu doon wax sànq mën a ànd donc foofu loolu la foofu la mbir mi yem waxtaan nag ay nit itam ne leen Ablaye sama diggante moom kenn mënu cee dox lu ñuy wax dinañ ko wax mais effectivement mën naa nag dafa bari yitte mi ngi ak mairie Ziguinchor mi ngi aussi. procès mais yéen ñaar def xaw bi def benn genre tiraillement. non non non xaw ma xaw ma en tout cas daal am na effectivement lu ci lu ci nettul mais li am solo rek mooy euh, communication bi jàllul euh, bari na yitte. te boo sañoon demee noonu. ba ma sañoon du demee noonu bien sûr. bari na yitte bari naa yitte communication bi jàllul donc foofu laa ci yem. te pourtant bi mu bëggee jiite réew mi da nga bàyyi si lépp ànd ak moom. mais justement 2019 effectivement dama bàyyi. dafa ñëw te boobu dafa ñëw ba sama biro mhm. mu mu wax ma ne dafa bëgg ma jàppale ko. ma ne ko amul benn problème du la tegal benn condition dama lay jàppale même bi may def directeur de campagne daanaka ñetti fan a desoon ci élection yi te du man maa ko laaj moom moo ma ko moom moo jékki-jékki ne daf may nommé directeur de campagne. Hmm. te bi ma ko waxee daanaka man na deux mois relancé wu ma ko ba mu des trois jours des élections mu doog maa nommé directeur te amul problème j'ai mené sa campagne jàpp naa ne ñi fa nekkoon ñëpp. xam nañ ne liggéey ba ñu fa liggéey mucc na ayib suñu poste fekkewu ko suñu xam-xam ko suñu influence fekkewu ko donc loolu moom def nañ ko defal nañ ko pour mu jiite réew mi kon jàpp naa ne actuellement ni ñoom ñoo ñu yoreel pour ñu mën a am ay poste responsabilité mais ñun li ñu mënoon a def ci ñoom ci yéene def nañ ko ba mu jeex wax ji nag bëri na boo demee ci réseaux sociaux yi ñii ngi tuumaal ñii ngi saaka ñii ngi def lële mais loolu ñun amul ñu problème ci loolu pour continuer suñu action politique. Euh, jërëjëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi euh, ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck tey ñu invité docteur Abdoulaye Niane. mu nekk expert fiscal euh, agréé jiite parti Teranga Sénégal nekk président coalition tabax jot na euh, coalition tabax jot na mu nekk coalition boo xam ne ñoom Boubacar Camara si la ñu bokk coalition boo xam ne ñoom jàpp nañ ne man naa passé sax li nga xam ne mooy euh, élection élection législative yi léegi docteur Abdoulaye Niane fi mu ne nii yéen même bu dul ñaari coalition yooyu pare ngeen pour dëggal seen bopp am ay député assemblée nationale waaw mais bi ngay ñëw rek am na ko fëgg sànq dugg ñun ci investiture yi lañ nekk fi mu ne nii dañoo nekk ci xool yan département kan moo ñu fay représenté par rapport à ñi nekk ci biir coalition bi maanaam moom lañuy tàmbalee jéema a waxtaane euh, maanaam moom la ñuy tàmbalee nag dañ koy ubbi ci partenaires yi mais jàpp naa ne euh, théoriquement war nañ ko commencé xalaat donc ñun passé nañ sax pour euh, di xalaat ne dañuy dem ak du ñu dem loolu ñun depuis de départ bi ñu àndee dañoo naroon dem jot na kese su amuloon ku mu day dem tabax bu mu amaloon ko na day dem waxuma laal nag ñu ànd ñun ñaar. léegi euh, costion bi joxe nga ko pare. non am nañ ko téye nañ ko teg mais déposé gu ñu dara parce que dañoo bëgg a pare yëpp demandoo defandoo ko. d'accord euh, docteur Abdoulaye Niane ñu wax ci euh, li nga xam ne mooy euh, Sénégal ak lu jëm ci koomu réew mi dañu gis ne Sénégal. guerru Russie Ukraine bi Sénégal commencé si am ay jafe-jafe yu méttee métti Covid 19 bi tamit lu mel noonu nan la ñuy def ba bu yeneen réew yi amee jafe-jafe ñun même bu dee dañuy am jafe-jafe tamit jafe-jafe yi du bëree noonu nan ban stratégie nga jàpp ne moom la ñu war a doxee. non d'abord première chose mooy il faut ñu am autonomie économique euh, loolu nag yombul mais il faut ñu liggéey ci bu ñu soxlaa dara ñu bañ ko jéggaani maanaam mbay mi ñu defar ko ba nit ñi mën a produire ci dëkk bi li ñuy dunde ñu fexe ba aussi pétrole bi ñu am yàlla jagale ñu ko ñu gaaw ko exploité te lu bari ñu mën a des ci réew mi euh, ñu fexe itam am ay partenaires ak pays africains yu ñu jege nga xam ne mën naa am ñoo bokk ay problème bu problème Ukraine amee ñuy dem di jéggaani mbir Pologne wala Ukraine wala Russie alors que peut-être loolu ñuy jënd waroon nañ ko mën a jënd fii ci suñu wet wala ci biir Afrique euh, bu boobaa ñoo tooñ suñu bopp donc il faut ñu am autonomie autonomie souveraineté du yomb parce que day prix yi day yokk par exemple bu fekkee looy jëlee euh, Ukraine la actuellement te Ukraine comme blé beeg am autonomie nan la ñuy def ba am autonomie ndax dana yomb. autonomie bi du yomb parce que yàgg nañ ko wax du tey lañ ko njëkk a wax mais dafa laaj xarañ dafa laaj yërëm population yi dafa laaj aussi consacré ci temps bi ñu ci war a consacré xam nga fii Sénégal li ñu yàq li yàq rek réew mi mooy boo namee ministre wala dara au lieu que mu toog xool problème yi mu réglé ko ah. day nekk di voyager ka wut ay influence commencé dugg ci politique bi nekk ku théorique ay directeur généraux pour ñoom itam euh, def li mu bëgg topp ko ci loola directeurs yi topp ko ci loola chef de service yi kenn dootul liggéey maanaam te loolu li ma lay wax ni lu lu sérieux la dama ko topp ci ay ministre yoo xamante ne dañoo seqoon liggéey bi ñu leen nommé ministre ma jàpp ne dañuy toog liggéey administration bi càmbar ko defar politique yi ñu war a defar ñu nekk di voyager di leb xaalis di dem ak ñëw ba. mais euh, justement loolu yëpp la cest di dire responsabilité politique bi la ñoom régime bi ci boppam ñoo xamul lu ñuy liggéeyee liggéey bu ñu la ko joxee da war a toog par exemple boo yoree agriculture da war a xool naka ngay créer coopérative naka ngay créer ay ay machines ay équipements ruraux. nga nga nga nga nga nga dox ci ba say chef de service ak say directeur xam ne lii yitteel na la nga teg ko bu ko defee àll bi ñu commencé ko liggéey nooy defee forage nooy former ay technicien orticole en grande quantité ba booy liggéey euh, no nooy defee euh, équipement yi nga xam dañ koy liggéey ci réew mi bañ ko jëndi tey bu fekkee ay tuyo nga bëgg ci àll bi def réseau hydrographique ci sa biir tool mais li ngay jënd yépp da koy jégaani da ngay dem dangay dem da ngay dem Maroc wala nga dem Europe pour jëndi tuyo yi alors que tuyau Sénégal war na ko mën defar su fekkee ne par exemple technicien horticole nga soxla tey mënoo ko am parce que bariwuñ ci réew mi te ñoom ñoo mën a fexe ba gàncax gi boo ko boo ko boo ko jiwee mu mu dox boo bëggee def euh, ah, maraîchage. mais mais docteur lan moo tax ñun mënuñoo euh, nekk premier producteur ci dara maanaam ñun presque defuruñ dara keroog dafa am ñu ma doon laaj ay cordonnier ñu ne ma euh, der yi fii sax der yi dañ koy jël yóbbu ko Chine ñoom ñoo koy defaraat pour indil ñu ko ñoom ñu mën see defar li nga xam ne moom mooy mooy ay dàll. côté boobu. en fait Abdou Khadre mooy suñu problème alors que ministère de l'artisanat wala chargé de l'artisanat ñi ngi koy am depuis indépendance mais kooku lu mu fi liggéey defar ay tannerie moderne nga xam ne ay machine la yoo xam ne c'est des machines rudimentaires boo demee Turquie sax mën nga ko faa am wala suñu gars yi nga formé leen bañ koy defar bu ko defee dàll yi dugg ci biir génn am am am qualité boo xam ne di nga ko mën a jaay au plan international jaay ko au plan national am ci valeur ajoutée loolu rek mënuñu ko mënuñu defar puso mënuñu defar pont. même jiw gi sax dañuy jéggaane lu bëri. jiw gi dañuy jéggaane alors que arachide baa ngi fi te moo moo moo ëpp solo donc ñun dañoo fonkul suñu réew. ñi loolu nag moom laa doon wax sànq ne la man euh, pro régler sama problème personnel taxumaa jóg ci politique. mais yow est-ce amoon nga xalaat boo xam ne suukar dootuñu ko jéggaani ndax am na fi usine suukar engrais dootuñu ko jéggaani est-ce que am nga xalaat ciment bi yomb feer bi ñu fi defaree ñu defar fer bu qualité mu nekk ci dëkk bi. tey bu doon ay caro am na ñu jàng ay céramiste yoo xam ne ñoo ngi fi mën a defar fii caro est-ce que xalaat boobu yow am nga ko ba nga xam ne boo xooloon fi li ñu fi jëfandikoo table yeeg yëpp presque fi la ñu koy defee. mais loolu mooy suñu politique ñun ñun li ñuy développé ci politique yëpp mooy fexe ba ñu am autonomie am am am souveraineté euh, lépp lu ñuy defar ñu xalaat naka lañ koy defaree ci réew mi. ba ba ciment bi fer bi lépp mais mais même même même bu bu même matériel de construction. caro commencé nañ koy defaree Sénégal euh, aluminium. am nañ ay menuisier ay menuisier aluminium yu baax mais nit ñi mais nit ñi mais nit ñi dañuy dem Chine di fa commander euh, pour ñëw defar seen i bâtiment parce que dafay chair mm-hmm. parce que équipement yi bu ko nit ñi mën a defar fii matériel matière première yi bitim réew dañ koy jéggaani donc il faut nga fexe ba lépp nga defare ko sa réew pour que bu paree mu mën a yomb mais loolu lu yomb la jërëjëf euh, docteur Abdoulaye Niane euh, waxtu wi jeex na benn laaj bu jub rek mooy président Macky Sall lañ ko gis fan yi muy jël ay euh, moom dafay dox ci wàllum wàllum transhumance te ñenn ñi jàpp nañ ne euh, du jikko bu du jikko bu rafet ñenn ñi wor wor lañ ko gisee trahison yow nan nga gisee doxalin woowu. waaw ah bon man dama jàpp ne moom politique politicienne ci lay jiite réew mi euh, actuellement parce que nit bu ñëwee ci élection locale proposé askan wi loo xam ne rupture la bañ fal ko wóolu ko. ñee ñëw bokk ci pouvoir bi am seen xaalis di leen ger ñu bañ réew mi am matu jàppale la ba bañ fal la jàpp naa ne yow moomu déjà yaa war a am ngoru topp population bi ci li bëgg deuxièmement bu fekkee da ngay jiite réew itam da ngaa war a tàggat nit ñi ci ay valeur bañ leen won ne lu ngeen def rek baax na l'essentiel xaalis baa ngi nii kon loolu responsabilité historique président Macky Sall la ci façon bi muy defee politique maintenant nag en tant qu'homme dirigé par moom moo xam ne muy tojee bopp dina xam mais population bi war nañ xam ne nii du tax Sénégal jëm ci kanam war nañoo def rupture euh, xool ay nit ñu set loxo nit ñu am ngëm-ngëm ñu jiital leen loolu mooy tax euh, suñu coono yi jeex mais tant que ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi jiital ay nit ñoo xamante ni politique politicienne ak parparloo moo tax ñu nekk ci politique dañuy nax seen bopp loolu nag damay préciser ne du pouvoir kese li may wax ni pouvoir ak opposition la il faut que nit ñi bàyyi xalaat bi ñu doon xalaat jàpp ne pouvoir moo bon opposition moo baax euh, système pouvoir système la opposition anti système la fi mu ne nii système bi dafa nekk ci ñaar yëpp. donc nañ ci bàyyi xel. léegi docteur euh, population bu Touba département Mbacké ban message nga leen di lancer. message bi mooy euh, yàgg nañoo nekk ci seen côté tey jii nii rek maa ngi jëm foofu ñi ay ndogu la ñuy def pour daara yeeg pour nit ñi néew ji doole yi ñu ngi kër ñan ñu ngi sama kër aussi Daaru Tanzil te daanaka koor gi bi mu commencé ba léegi ci loolu la ñuy dox. kon ñun période bu ñu toll rek dañoo bëgg ànd ak population bi surtout ñu néew doole ci population bi am nañ aussi euh, yéene rôle bi nga xamante ni nii gox boobu war na ko jouer ci Sénégal ñu bokk ci ñi koy dox te war naa mën nekk war nañoo am ay ministre ay directeurs généraux mën nañu am président la république bu ko defee yéene ji sëñ Touba amoon ci gox ba ak ci réew mi ak ci Afrique ñun ñi nga xam ne ci keppaaram lañ màggee fa lañ juddoo ñu mën koo doxal te loolu nag intérêt sénégalais yépp la muy jullit bi muy chrétien bi muy keneen mais nag loolu Sénégal war na ko essayer parce que ba mu commencé ba léegi essayer ko. d'accord jërëjëf euh, docteur Abdoulaye Niane ñu lay sant di la gërëm. ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax Abdou Khadir jërëjëf. jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen doon déglu rajo réew mi FM loolu mu nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot 15h jàpp 16 tey ñu invité woon docteur Abdoulaye Niane moo jiite Teranga Sénégal jiite coalition tabax jot na Mamadou Diaw moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak